di nuyu éleveurs yi ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu seet si tey di ci sant bu baax monsieur le ministre parce que mën na naa wax rek naa yem Ngoundiane Touba Toul c'est pas ba mu demee Ngoundiane xelam doo di ci Touba Toul parce que moom xam na Touba ministre am nañu nekk sa présidence fii fii ci Touba Toul ñu xam ko baax ci xaram boo nee Touba Toul ñu ànd xam yu rafet yow te yaakaar naa na ko li fi ñëwoon lay ci xaram jëw ci commune yi nga xam ñoo ñu gën a sës moo xam Ngoundiane la moo xam la. moo xam Ceneba la moo xam Réfane la moo xam Kër la ak toutes les communes xam ne ñoo ne dans département de Tivaouane ñëpp ñoo nuyu fii tey indi seen xar képp ku am xar bu rafet rek indi ko bu fii ci Tivaouane tey ñu am ci satisfaction yi nag bu ñu ne ren rek lu fa am fii képp koo xam ne nekk ci Sénégal ba xar bu xaru yar xar bu rafet ci biibal jëppoog la moom nga am li ci sa poche boo ñëwee fii ko du teg monsieur le ministre fii ministre Aminata Mbengue Ndiaye ñëw na fii képp koo xam ne jiite nga élevage ñëw nga fii xool si liggéey bi xool si xar yi mais saa fu sa xel jàpp nañu ne lu tax dina dal parce que fii nga ñëw tey li fi fekk tey jàppoon na ne amul ci Sénégal te am na fii sama commune ah nga nekk sama couleur yi ma xam ne bu baax avant la nekk ministre de l'élevage ma amoon te couleur sa kilifa mu ne ko sama xarit aussi kon boo nekkee ministre ñëw ci sama commune xool si ma ne ma ko si mu monsieur le ministre am satisfaction am dégg naa top ci sa présidence fii ah doléance yi sax am na forage bi ni nga ko gisee commune bi moo jël en charge dégagé vingt millions ci fonds propres di ko clôturer vingt millions ci fonds propres ba travaux yi na ñu war naa fekk ba pare mais tey nag entreprise entreprise moo am ay gàllankoor ba liggéey bi parewul loolu la boo gisee ñu def ko dañoo bëgg forage am sécurité diggante sécurisé ba ñun ku fa dugg rek doon di yomb pour ñu génn la moo tax commune bi jël décision clôturer mettre am valeur pour ñi nga xam ñooy éleveurs yi mën a jaay seen ji ci tranquillité loolu moo tax commune bi jël décision am na seet lu des parce que clôturer yoon foraay laaj na ay abreuvoir laaj na ay ombrage ay magasin de stockage loolu lépp waaye bi laaj na ko ak yenn liggéey liggéey yaa ngi koy xam parce que xam naa ne sàmm nga xam nga sàmm lu mu laaj. li ma ci dolli aussi wax naa ko koro ci CRD dama ne commune Touba Toul forage Touba Toul saa ñu commencé saa ñu jàllee qualité rek Tabaski dugg na xar yi commencé nañoo bëri mais dañu demee bu ne aliment de bétail bi fay tardé ñëw. parce que du ñu du ñu mën a lekk Ngoundiane te Ngoundiane juste presque une semaine avant Tabaski la la activité bi di commencé ñun suñu animal de bétail bu ñu yore fekk na suñu activité jeex moo tax ñu bëgg bu ñu jàllee Korité rek nañ ñu jox suñu animal de bétail ndax mu mën a dimbali éleveurs yi. ndaxte jur yi nga gis fii yëpp seen i ñu ko fii lu ñu daj métti te léegi léegi ñu jeex te duñu am aliment de bétail te aliment de bétail bi ñëwagul te samedi mooy suñu dernier luuma kon fii ak samedi bu fi aliment de bétail ñëwul même bu ñëw itam jàpp naa ne éleveurs yi ko jëriñoo mais après lañ ko mën a jëriñoo kon monsieur le ministre ñu ngi lay jàmm di am mbégte ci éleveurs yi surtout ñi nga xam ne ñooy saytu foraay bi ñooy ay kilifa. ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu ngeen di eh, jafe-jafe yi fi ëpp fi nii mooy période bi bi bu xasee ñëw kenn dootu tëdd nelaw malfaiteurs yi nekk Dakar ak fu ñu mën a nekk ci Sénégal ñëpp fii la ñuy ñëw mooy rabajeeru la xaw ma coxeur xaw ma ràllu man xaw ma ngàdd man lañ leen di wooyee ñoom ñëpp ñu ngi fii te ñoom ñëpp xam nañ leen bu fekkente ni naari la amuñu fi ay mbokk ñu koy def bu fekkee pël yeeg séeréer yi pël amuñu koy def mais ñu koy def de façon régulière. ñoom li ñuy def mooy da ngay ñëw. ñu gis sa gétt ne xar yi ñaata nga wax leen prix ñu dem oto gaare bëgg a jënd benn wala fukk wala téeméeri xar ñu ñëw ne ko kaa ñu dem ma woon la fële. su fekkee juboo nga ak ñoom ci ñoom prix boobu lu ñu ci teg ñoom ñoo koy moom wala même bu ngeen ko jubawut boo leen xasee wax ni xar mi nangam la rek ñoo ñooy ñëw ak prix bi. su client bi demee dañuy ñëw imposer la boo leen joxul xaalis bi ci dañ lay jam lu nekk lañ lay def loolu mooy problème bi te nit ñooñu nag xam nañ leen dëkkuñu fi liggéeyewuñu fi ñoom ñooy tax prix yi di gën a kawe mais kii yeew téeméeri xaram yaa xëy bu amee benn mille francs wala 3000 francs par xar da koy jaay. benn exemple a cité par exemple ñu agressé fi nit est fii nii daaw jéeg ça je pense que les autorités yi amoon en charge ce dossier là ñoo leen mën a informer de façon claire dañuy ñëw ne la kaay ñu dem fële ci ginnaaw am naa fa ay xar kaay ma wanteer leen ko. nga yor sa yor sa xaalis topp leen naïvement nga génn ñu jam la mbaa ñu door la nga daanu ñu assommé la jël sa xaalis dem seen yoon y' a beaucoup de gens qui se sont plaints ici pour ça. te loolu fépp dara yëpp la nañ jox carte blanche police ak gendarmerie ñu arrêté leen pendant des périodes comme ça on les met au froid et après on les ressort c'est tout. Sidi, jusqu'à présent on pas de, beaucoup de voleurs. On a peu content. Mais le problème c'est qu'il n'y a, a pas beaucoup de clients jusqu'à présent. les clients sont pas beaucoup. a Non, je sais pas, ça, sais pas. Mais jusqu'à présent, euh, prix n'ont pas encore monté. Il n'y a pas de, prix sont extrêmement élevés. Non, les prix jusqu'à présent est normal. Nous, on moins cher parce que nous, on veut euh, chaque jour, euh, chaque mouton, 15 000, 10 000 comme ça. Vous achetez des aliments de bétail Encore, on a acheté ça depuis Mauritanie. On a, euh, euh, on a consommé beaucoup d'argent. Mm -hmm. Mais jusqu'à présent, on ne trouve pas les clients. Mm -hmm. Les prix varient entre combien et combien Le prix de cette année, c'est normal. Mm -hmm. C'est moins cher. il y a des euh, 100 000, 75 000, même chaque mouton, c'est, il y a des Mais jusqu'à présent, il a pas de clients. a pas Oh, je ne sais pas. Non, je sais pas le problème. Non, la sécurité, euh, maintenant, euh, n'a pas ouvert le. Euh, il y a la sécurité, jusqu'à présent, il y a la sécurité. Mais on a peur seulement les deux jours avant les fêtes. Les deux jours qu'il y a avant les fêtes, euh, ça roule beaucoup de, de, de, voleurs. Quoi. Donc il faut renforcer la sécurité Ah, la sécurité, ce n'est pas pour nous. On ne peut pas faire, nous seulement les commerçants. Le forêt n'est pas électrifié alors Bon, je ne sais pas. Okay. Jusqu'à présent, nous, on n'a pas encore trouvé le, le, le voleur beaucoup. Il y a les petites opérations, mais ce n'est pas, pas grave jusqu'à présent. Mais le problème, c'est les deux jours et trois jours avant les fêtes. waaw. Hmm? waaw. waaw noo gisee dara bi. daral eh, baax na jàmm eh, jàmm ngi ci de. Mm. waaw gars yi mi ngi jaay ndànk-ndànk rek. Mm-hmm. waaw loolu laa koy xar seer na. xar ren waay parce que bariwul xar seer na tax ma bariwul daal. bariwul mm-hmm. di jox xar yi aussi waaw aussi oh, waay. na trop. Mm-hmm. waaw parce que saako saako repas nañ ñaar junni ak ñaari téeméer. Ah. ñaari junni ak téeméer yëpp mu waaw loolu yëpp mu waaw. xar bëreegul te gars yi duñu yaakaar ne xar dafa bëri ku nekk day bañ a jënd day wax ba suba la tabaski laay jënd te loolu ku ko def mun na am doo am xar boo tabaski wallaahi gisoo xar yi dara daawul mel nii te fii amatul dara lu des pe di ñëw fii mais dégg naa xar yaa ngi ñëw de lu des bëriwul ay set camion huit camion moo war a des ah. waaw ay sept camions. mais da ngeen laxas jaan ci xar yi de. non xar yi seerul ren. ay cent cinquante mille yooyu mooy seen mooy gars yi yeneen bokk rek ñun ñeneen ñi rek ñu yore yaru xaru yar yi waaye. yéen xaru coggal yi ñaata ngeen di jaay xar yi. xaru coggal yi am na ba cinquante. ku nekk solo tool cinquante jëm kaw. waaw xaru cinquante mun nga si tabaske am na six mois. xar yu ndaw yu ndaw a ndaw non non ndaw. waaw am na cinquante ba cent su nekkee ramasse mun nga am comme cent xar yooyu mun nga am soixante dix cinquante cinquante cinq nga am ramasse cent xar wala yooyu comme usine yi waaw. yaakaar nga ne daal bu gaa yi teelulee ñëw buñ mokkatuñu. ah wallaahi suñ teelulee ñëw ku yaakaar ne comme gaa yi toujours xar day ñetti at yëpp xar day des fii ku yaakaar loolu bi yoon doo doo doo tabaski waaw. ñu gaaw ñëw jënd si ñu ñëw jënd si suñ ko deful. suba la tabaski ràjj ngay am wala doo am loo tabaski. ràjj mooy. mooy xar bu yooyu. ñuy fanaan garde ba bët set kenn du nelaw te presque lii bi compte bi cher na nawet bi tawagul waaw nawet bi tawagul waaw dafa mel ni xaru yar yi ñoo am na wante nag soo seelee tamit dañoo suur wante nag euh, xam nga duñu xaru yar waaw xaru yar am na wante nag bari wuñ noonu. mais mais ni xar yi daan bare ci waxtu wi daaw daa mel ne ni euh, bareegul. non xar moom bareegul. bareegul waaw bareegul loolu. ah oto yi dégg naa oto yi ñoo seer esta eh, yi xam nga li fi toogul. affaire bi toogul ñoo xamante dañuy jóge fu sori mënu ñëw ba fii di contract saaku ripaas dix mille ay dix mille waaw El Hadj Saliou suusum Njagañaa. fii nga nekk ni fan la. mooy Korosma Ngunja Ngunja lañ koy wax waaye Korosma la tudd. mais gis nañ ne xar ah moo waaye dinañu ñëw di lañ wax. Uh-huh. parce que man seetaan naa Ismaïla mi ci suba sax ci télé. muy wax xar yaa ngi ñëw dinañ ñëw. Mm-hmm. waaye fi mu nekk xont bi moo ñu sonal. moo tax xar xam nga dañuy wax xar seer na waaye seeru. Mm. parce suba bu ne. day njóg bi day yokk fekk jaayo parce que xont bee la lu ñu lekk dégg nga dindi ci poos. waaw lu ñu mën a lekk suba bu ne dangaa dindi ci poche xam loolu njëg yi day yokk ay cent we ay cent dix mille loolu lañ leen di jaay bu cent quinze. yooyu na cher xam nga xar yi ponkol lañ yooyu daal lañ ci xoolal xar yi comme xar yu ñu maanaam am nañ sécurité waaye xam nga fii moom lii moom. lu métti la lamp yi ak xont daal moo ñu gën a sonal. ak lamp yi fii amagul courant. samp guñu ko daal waaw day lënd moom. ah xam nga bu lënd mais moom wóorul. waaye naa tane daal parce que sécurité bi bari na. ñun it bari wu ñu nelew daal.